salaamaaleykum mbokk internetu Tacko TV salaamaaleykum ñi topp Tacko TV di ko seetaan salaamaaleykum ñi nga xamante ni ñoo safoo artistes yi salaamaaleykum tamit ñi nga xamante ni ñooy dund ci wàllu aar salaamaaleykum tamit euh, biti réew ak fii ci biir réew mi salaamaaleykum ñi nga xamante ni tamit euh, ñoo safo Tacko TV la lumière di kër donc seen aar tey dafa ñëw fii ci yëmbal ñu seet si benn ndaanaan boo xamante ni. Euh, kenn dootu ko présenté ci réew mi euh, donc tey moom laa ñëw seet si seen aar moom la seet si seen aar nag moom moo tënk aar yëpp muy fecc bi way bi tëgg bi euh, tamit ak théâtre bi aussi tey dama bëgg waxtaan ak Assane Ndiaye koo xamante ni artiste la boo xamante ni def na ci aar lu ne def ci théâtre lu ne ñu gis ko ci téléfilm yi gis ko ci léeg nga dem Sorano fekk ko fa muy def ay sur scène yu doy waar yoo xamante nii tamit tey mën nañ ni artiste bu mag la tey dinañ waxtaan ci wàllu art ci wàllu monde bi mu ne tey waxtaan ci vie tuuti rek tey duñ ci mën a xuus waaye nag li ñuy gën a euh, insister mooy ci aaram fu mu tolloog ak fu mu jëm ak ak fi mu débuté ak lépp ne xëy na dinañ ci waxtaan waaye ñu ngi lay ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ngi lay bëggee Assane Ndiaye di la nuyu di la dalal jàmm fii ci euh, seen art Tacko TV. waaw ba tey ñu ngi ñun tamit. mbokk internet Tacko TV ñu ngi leen di bëggee di leen siyaar di leen ñaanal jàmm te di leen wax na ngeen di abonné ah. te commentaire daf ci am solo. waaw ndax ñun ñooy yéen yéen ñooy yéenay ñun. waaw kon mu ngi noonu ñu ngi leen di nuyu daal yéen ñëpp jaajëf. waaw mi ngi noonu kooku mooy Assane Ndiaye eh, ku ne xam na ni nuyoo na eh, tey mu nekk artiste boo xamante ni ku bu ko caméra bi jëlee rek dina gis dina xam dina xam ni kii ndaanaan la eh, est-ce que mën nañoo xam Assane Ndiaye ah fu mu juddoo ak fu mu yaroo ak tey euh, euh, euh, ban jour la ban bés la ak ban temps la commencé def théâtre waaw ah, wax fi ma juddoo moom dina ma neex waaw <laughs> ah, wax ko ndax ku juddoo principal <laughs> ñu ngéntee la Pikine nga màggee yëmbal ah kooku mën naa ne yow doomi fépp nga yow doomi fépp nga mi ngi macha allah waaw ayca ban ban ban ban ban jamono nga commencé def théâtre parce que tamit am na feneen foo jaar avant ngay théâtre su ma juumul dégg for naa ci wewu ba ñu ni ma euh, ku mënoon a nga xaw ma ku mënoon a góolu daal. waaw dëgg la li ma dugal ci aar nag maanaam nekk ci ko nekk xale. Mhm. di ko fowee di fow ci tànn béer yi. sabar yi fóoral yi dem di animer di nekk ci daal di ci fo. ba yàlla def ñu màgg ci virus bi duggunu ñu nekk ci ba tey mu nekk sunu métier. lii daal moonu ba ci métier am aar mooy surtout théâtre bi. maanaam yow yow da nga ko tàmbalee ci ci koñ. waaw tàmbalee ko ci koñ bi. kan moo la inspiré kan moo ni la boo defee eh, eh, théâtre di nga ci génn. non wax dëgg yàlla nag man nag wax nu ma boo defee théâtre da ciy génn. dafa nekk lu ma neex rek di foo doon. benn genre kulum <laughs> waaw comme ni ko doon benn kulum nii yàlla nekk ci man di ko foye ba ni yàlla defee comme ni ma la wax rek màgg ci. xam ne lii war naa cee mun a dem liggéey. ma nekk ci teewul ma boole kook leneen nag. Mhm. waaw boole kook leneen nekk ci ba yàlla def tey moom mu domine lu bari ci man sama dund. waaw loolu la faral gars yi di gars yi loolu la ñuy faral di wax naan aar daa fiir quoi tey loo ko booleel rek da koy dominer ci benn côté. waaw loolu métier yëpp la. métier mu bënn dox rek. sa wërsëg nekk ca nga nekk ca rek. muy aar ak leneen métier yëpp la. bu doxee rek dominer leneen. waaw loolu ci yëpp ci métier yëpp la daal. waa dégg ngeen ko moom ci benn koñ bi la nekkoon nee nee na benn kulung la nekkoon ci koñ bi affaire yi neex bi dugg ko. rek mu jékki-jékki rek nekk benn benn comédien affaire yooyu noonu yaa ma gën a xam scénar tey ngeen dégg dëgg nag tey kii kii mooy Assane Ndiaye ah, ñu ñu ñu ñu bëgg xam ba xam tey yow ban groupe nga jaar yan ci yan euh, formation nga jaar ak ci yan troupe nga jaar ba euh, mel nii nga mel nii tey waaw ah, non wax dëgg yàlla nag melagonu ne nag danoo nekk ci métier mi xam moom dafa weex donc waaw loolu la yàggagun ci nag waaw d'accord mais am na noo mel waaw macha allah waaye même am na noo non ci li ngay yëngu. Maodo mais yor caméra bi dëpp nu ko am na nu mel. waaw ci li ngay yëngu waaw ci li may yëngu. maanaam ci li ngay yëngu ban troupe nga jaar ñaata troupe nga jaar. waaw ndax maa ngi njëkk a bokk ci troupe bu naan doomu Afrika yàgg na. di ci foni yàgguma fa sax dugg génn ndax ñemewuma ko boobu paa bee ngi juddu dund ak yéen xam nga rek doo comprendre mais troupe bi ma njëkk a nekk bokk ci xam ne lii maa ngi ci mooy troupe Pastef bu yëmbal. macha waaw ñu nekk fa nag ñu bare bëri ñu ne woon fa wax dëgg yàlla macha allah mu nekkoon troupe bu amoon doole nag waaw bi ñu fa demee ba jógee fa ci la nekkaat ci beneen troupe bu naan ndeer waaw ñu nag ñoom tonton Ada tam ñu nekkaat ci rek jógeeti foofu nekkaat ci beneen groupe bu ñuy wax kàddu askan wi Pikine waaw kàddu askan yooyu waaw troupe yooyu jaar naa teewul jaar naa ci Ibrahima Ndiaye maam yaxi laalo maam yaxi laalo <laughs> maam yaxi laalo mooy kat waaw man ma maam yaxi laalo <laughs> dama koy dégg. wallaay kooku ndaanaan la non xam naa ni maa ngi dégg maam yaxi laalo. Oh. mais euh, xamuma ko quoi maanaam. tey jii ni nga koy xamee nii est-ce mën nga cee wax tuuti ci moom. waaw ci ay ndax boo déggee jotaayu xale yi daawoo ko dégg. waaw jotaayu xale yi waaw wax nga dëgg. Ah. oh internet bi. xam naa ah, kooku mooy Ibrahima Ndiaye maam yaxi laalo maam yaxi laalo. wax nga ñoom Mamadou Mouhamed Ndiaye bi ngay dégg. kooku mooy papaam. ndeysaan ah ki nekk TFM. waaw macha allah ñeneen ak ñeneen ñoo xam ñu ngi yëngu ci wàll métier mii ñu ci bari. mu ci bari ay ñoom Babacar Ndiaye sooda mi ngay dégg ñoo ñëpp mooy seen papa maam Ndiaye mi nekk awal fi ñoo ñëpp mooy seen papa mu def ci am na tamit loo ne def na ko ci ñun dëgg yàlla ñu koy sant yàlla di ko ñaanal fa mu nekk nag yàlla ko gënal fi mu jóge amiin amiin waaw njaboot gi mu fi bàyyi yàlla teg ci loxo waaw ñu ngi koy ñaanal jàmm ak tawféex mu ne eh, yàlla eh, wooy fa suuf si sunu maam yaxi laalo daan naa ko dégg képp ku daan foofoo waxale rek daa nga dégg sunu maam yaxi laalo nga jógee nga jógee nga jógee foofu waaw bokk ci association théâtre yi waaw ba yàlla def tey man nekk ak Pape Demba Lam. Pape Demba Lam liggéey ak ndoom ci muñal lu jot yomb. muñal lu jot yomb. waaw ñu koy nuyu nag de passage muy nit ku baax. waaw non kooku nit gënu ko. sunu papa. wax dëgg yàlla muy nit ku baax yaatal aar bi. mais mais damay dama lay dagg foofu. père euh, Pape Demba ñu bëri danoo defe nii daa am beneen melo bu bokkut ak comme ñiy du ñëw ni ngay dundeek moom. ci ci ci ci ni ngay dundee moom fu muy fooy dem. fu muy dem yóbbaale la mu mën a dund ak yow mais am ñi ko xamul dañuy dañ koy dëkkal fenn fii naan nii la mel day def nii day kii nii euh, euh, Pape Demba ko mën wax ci moom rek. waaw ah, xool ko ci yonente bi gën gi mbindeef li yàlla bind moo ci gën. mais noonu la bari woon ñu koy ñu koy gàkkal di ko taxal ak lépp. dëgg la Pape Demba bu rafet la yor barke Rasulaay nit gënu ko xol. dëgg la tey bu ngeen àndoon jox boo nee lii rafet na mu dem jënd ko jox la ko nee la nga wax may la yaa ko yaa yaa ne rafet na. <laughs> non ci lu bari loo ci qualité yoo xamante nit ku nekk ak moom war ngaa mën a jàng ci moom lu mu laa gis ci Pape Demba nit gënu ko. macha allah damay taxaw wax loolu ndax loolu laa gis ci moom. muy nit ku baax nit ku oyof liggéey nag moom boo ko fekkee na nga naan kii dof la waaw liggéey moom liggéey la bu àpar liggéey moom ku bëgg nit ku fonk doomu adama moo dafa bëgg nit xale bu ndaw koy taadeel la eh, mu taxaw nuyu la xaar la ñu fekk si la nuyu jël ak moom photo photo oyof te dafa am solo ci doomu aadama macha allah waaw ñu koy ñaanal mooy mu yàgg ci kanamu njaboot gi daal macha allah tey nga ngay ngay liggéey ak dem ba nga dem nga wiiri def ay ay nga jaar fu ne ñëw ba ci euh, groupe bu sunu papa Pape Demba mu ñëw lu jot yomb ak waa groupe bi foofu nan ngay dundee foofu ak waa group bi. waa am dañ fay dund dund boo xamante ne neex na lu trop. macha allah ndax kër goo xam ne na nga ñëw ñu ne la sa kër la ah ñëpp jox la cër. waaw moom cër ba mu la jox xale yi xool loolu jox la cër bu ko raw. loolu rek dafa neex. ndeysaan tey ginnaaw moom dañ naan man la. waaw waaw mu nekk loo xamante ni mu neex ko ak noddu gi ñu dégg. ayca mi ngi noonu gars yi euh, euh, euh, ku ne xam na ni Assane Ndiaye loonu am Assane Ndiaye mu nekk koo xamante ni muy ndaanaan bu mag nag daanaka nag génn ci téléfilm bi Assane bu nu jógee foofu yëpp nga wiiri ñëw ba ci pap sunu tonton Pape Demba sunu papa mu yor groupe muñal lu jot yomb dafay dund lu nice moom it ngeen di dund lu rafet macha allah bu nu jógee foofu dañuy ñëw nag direct ci ci théâtre léegi ñu ñu gis bu njëkkoon sur scène dafa amoon ku bëggaan a seetaan sur scène da ngay dem théâtre da ngay dem ci Sorano wala nga dem ci lii nga xam ni euh, euh, ay euh, salle salle salle de spectacle yi la ngay seetaan ay théâtre yoo xamante ni sur scène lay nekk nga kii mais léegi yooyu gisatuñ ko mu wàññeeku de trop ci Sénégal fii. waaw comme ni nga ko waxee rek théâtre sur moom dafa am solo. Mhm. te ci la ñu gën a nekk di ci dox. di ci bay sunu waar li ñu ci yàlla jot jox jot a jox tuuti ci xam-xam ñu bokk ak ñin ko war a bokkal. macha allah nag saa su nekk. mu nekk euh, loo xamante na nga ne dafa gisatuñ ko ñu ngi koy gis bareetul daal ngay wax. bareetul waaw waaw ndax mi ngi am ci saal yi ba tey. dëgg ngi koy presté wax dëgg yàlla nag dañ ko war a gën a dooleel. macha allah waaw gën a dooleel bi nag. jëkkewul kenn ci ñu dul ñun acteurs yi ñun ñi nga xamante ne ñooy artistes comédiens yi. dëgg la waaw ndax nekk na loo xam ne am na solo message yaa ngi ci jàll te théâtre nag du moroomu leneen bari na loo xam ne wuute na ak ñoom daal ndax gaa yaa ngi koy jaawale métier am théâtre gaa yaa ngi koy jaawale lu bari ci wàllu téléfilm beeg leneen ak leneen waaw xam nga tey ñu si bëri dañuy jaawale euh, téléfilm ak cinéma ak sur scène ak captation ak captation hmm. est que mën nga ñu cee dimbali tuuti nga dimbali waale ma ci captation sur scène téléfilm ak euh, cinéma waaw tey captation bi boo ko déggee mooy li ñu def ci salle bi di ko jouer théâtre ñu filmer ko yóbbu ko loolu mooy captation li ngay ñëw ba tey di ko jouer noonu naturel ci kaw chaîne bi loolu mooy théâtre li ngay ñëw tey def mooy téléfilm boobu nga xamante ni moom lañ la filmer dugal la ko ci télé bi nga koy seetaan loolu mooy téléfilm bi ak cinéma ba yooyu la ah ok am na différence daal. waaw am na différence euh, euh, est-ce que tey mën nañoo mën nañoo xam tey comme tey ñi daan jouer euh, théâtre bu njëkk ba. ni ñu ko daan jouer ak léegi ni ñu koy jouer Euh, différence bi bari na euh, am na nag. Euh, mais ah. comme yow moom acteur nga ci affaire yi. Ah. lan moo ciy sa xalaat ni ñu daan joué bu njëkk ba ak télé ni ñu daan seetaanee téléfilm yi bu njëkk ba ak téléfilm yi léegi différence bi ni mu ni mu demee nii en tant que acteur loo loo loo ciy wax. parce que tamit boo xoolee label yi bari na tey ñu ngi tourné ay film ay ay téléfilm yu bari mais daanaka. waaw loolu lépp sant yàlla. ndax théâtre moo ko waral daal. dëgg la waaw li naan aar bi dafa neef. wax dëgg yàlla ku ne dina ñëw te loolu sant yàlla la dëgg la xam nga tey li nga nekk di ko def ba ay nit gis ko di ko roy di ci ñëw kon lu baax la pour man kuy roy roy lu baax it kooku kenn du kenn waru koo bañ macha allah waaw mu nekk tey da nga théâtre bi dafa bu njëkk ak bu léegi bu njëkk bu léegi benn la dëgg la dafa mel ni ceebu jën bu njëkk ak ceebu jën léegi moderne am na différence waaw ah. tey weer yi fa mu doon fenke jant bi fa muy fenk ba tey fa lay fenk weer wi tamit noonu fa muy génn fa lay génn ba tey rek dëgg la kay. waaw léegi te kon dara changé wul nit ñi ñooy changé. waaw waaw ak tëpp technologie bi ak bëgg buzz ba tax ñuy defee benn façon bi. dëgg la mais théâtre fa mu nekkoon mosu fa jóg. wallaay dëgg yar la yedd yeete. Euh, wala mun dinaa ñëw ci loolu parce que tey ñu si bëri dañuy ñëw dugg ci théâtre am nu nuy mel. nu nuy mel comme. comme tey nga ñëw ñu nga nekk benn acteur. dugg ci théâtre mhm. nekk nekk benn acteur ko par exemple ngay am li ngay li ngay wane ci télé bi yow doo ko dund quoi. comme ça doo dund li ngay wane ci télé bi. waaw li ngay dund si télé bi loo ci loo. li ngay maanaam maanaam li ngay dund. tey ñu jox la exemple Assane Ndiaye ñu jox ko rôle rôle imaam. waaw mais loolu personne la. ak personnage. personnage waaw. waaw mais tey man lan ma jox personnage bi may dugg dem di ko jouer. waaw bokkut ak après la may dund. waaw mais nit ko ne am nga droit jàngale. dëgg la. defal lii baax na def leen ko lii bon na bu leen ko def théâtre lool la rek jàngale la waaw dafa mel ne imaam bi toog ci jàkka ji di jàng def leen nii lii la yàlla bëgg boo defee nii lii baaxul waaw dëgg la noonu la théâtre mel waaw waaw tey nag nit ki liy jox mooy xam la muy def lan la dëgg la tey su ma la nee am li ngay ji bala da ngay xam li ma la jox boo jëlee da ngay wax pare soog a joxe dëgg la waaye nag la ngay la ma lay jox après man dinaa xam la tax ma jox la ko man naa ko mën a défendre di tax ma jox mhm. loolu dafa am solo ci ci ci li ngay def dëgg la nit boo def te xamoo li ngay def nga def loo war def dëgg la mais lii métier la moo xam ne du jeex àdduna la dëgg la te nan la nekkee àdduna la ci mën a dimbali mooy ngay gëstu nan la nekkee àdduna nan la nekkee àdduna añ leen dégg na si jàmbari waa Aliou waa Aliou nan la nan la nan la nan la nekkee àdduna lii def waaw maanaam tey jii loon ci mën a expliquer quoi tey euh, euh, euh, comme nga ni personnage bi. nan nga ñu mën a expliquer nan la nan lay nekkee àdduna quoi xam ni nga ma fekk tey kër ma toog. waaw bokkut ak sumay ji mënul bokk. waaw ndax da nga nit dafa toog xalaat bind scénario ni bëgg naa ku mel ni kuy waxe nii kuy doxe nii kuy jëfe nii. dëgg la te loolu man nekkul ci man mais artiste la yàlla may mu doon lu ne. waaw mu mën a doon lu ne. te leneen mënul doon ni moom. wallaay. wallaay boo bëggee ma doonal la leneen mën naa la doonal leneen. dëgg la waaw mais loolu personnage la métier la looy jàng la. dëgg la dañ koy def ci yow far force yàlla moo ko moo ko may lii. moo ko ko mooñaale waaw mais am na ci loo xam ne dañ koy dem ñu <laughs> parce que day am ñoo xamante ni dañuy dañuy xaw a kii nii rek xaw a saf xorom nii wala neex nii seen waa koñ di leen dem leen def loolu. ñu ñëw rek ñu defee ni ñoom mën nañ te bu nu demee ci yeneen côté ñu teg leen foo xam ni sax bu nu amul xol bu xoluk muñ dëgg <laughs> dinañ xaw a caalit euh, euh, euh, looy wax ñooñu nga xamante nii ñoom demuñu ci saali demuñu ci ko mel ni Assane Ndiaye demuñu ci ko mel ni per Père dem Demba mu jàngal leen parce que tamit théâtre dafa am ay façon nun koy jàngalee ak nun koy defee dafa nekk nag lu doy waan nag mhm. foo ci nekkee foo nga nangoo muñ <laughs> première te nangu <laughs> waaw ndax dina lay yuuxu mbooloo toog nga def ñu la li nga def ndeysaan foog nga am mën a xool muñ quoi. ndeysaan mu nekk métier moo xam daal wax dëgg yàlla man xaw ma daal mais métier mu ma fonk la mu ma neex la wax dëgg yàlla ma koy def nag ñu ma ciy jox xaalis nag day gën a neex dafa neex. Mhm. théâtre dafa neex. yow ban jour nga njëkk a kontaan ci théâtre bi ban jour nga njëkk a recevoir bu bëri nga sa xol féex. ah xaalis jot nañ ci jotati ci suñu xol. di neex non man bi nga ko njëkkee jot nga xam ne lii théâtre moo la ko may. non bu dëgg lan noo théâtre nag li ma may moom bari na wax dëgg yàlla ci xaalis. waa dama ni. première fois bi nga ko njëkkee recevoir maanaam nga téye li nga xam lii mooy première cachet bi ma njëkk am ca théâtre noonu lu mu la def sama premier cachet jàpp ma ko de bi laay walaay ndax bëgg <laughs> non bëgg bu bëgg mbir waaw non soxna yaa ma na suñ tool mm. euh, euh, nan nan nga daan dundee ak say ñoom papa ak say ñoom yaay comme bu ngay dem di répété ji bi nu xamee ni mais yow li tax nga dugg si xam nga ko non sama papa ko woon ba nii non génn àdduna. waaw yal na ko yàlla yërëm te xaar ko àjjana. mais avant muy génn àdduna xamoon na ko. noo xamu ko xamu ko woon. non nëbbatu wóor na yàlla du caaxaan. doy na waar suma yaay nag moo ko xamoon mais neexu ko bëgg ko. bëgg ko lu tax mais après nag baab waxtaan baab naxante rek. ba ban nangu loolu la rek. Hmm. ndax fa ñuy gisee. fi ni ñi fi ñuy gisee moo doy waar. waaw tey mu ngi mel ne tey Assane tey jugé gis nga Rassane jugé nga ko ci foo xamante ni loin de là waaw ñii de Assane Ndiaye. dëkk na Jamaïque. <laughs> te bu nee Jamaïque rek. aar noonu la bu jëkkoon mag ñi fan koy dëkkale moo da foo ci mhm. duggee da ngaa bëgg a bon wala benn affaire. dëgg la waaw te wax dëgg yàlla métier bi ñu baax a ngi ci. wallaay yow xam nga ci dara ñu baax nga ci. dëgg la ñoo xamante ni yàlla nañ ci defal teraanga ñuy dimbali doomu aadama. wallaay la kenn du ko yëg. dëgg la ci côté bu ne nag. ñi ci ñi ci biti ñi nga xam ne xamuñu monde bi. Mhm. ñi nga xam ne dañuy ñoom dañuy toog di seetaan rek mhm. télé ñëw na télé bi taal nañ ko seetaan nañ gis nañ Assane Ndiaye def na ay kii ba pare ñuy critiquer maanaam di di yàq quoi di yàq artistes yi nii lan mel nii nii nii. critique critique mënu fee mënu mënul kii mënul ñàkk. waa mënul ñàkk moom. foog ñu lay critiquer. waaw te critiquer nag loo xam da cee am solo. voilà mais ñooñu nga naan ñiy toog ci bu ci télé bi. ñooñu am na si ñoo xam ne kenn yaa ngi def théâtre waa am ko toog fële ca télé ca di di yor si commande am di sappe moo la gën a xam moo la gën a xam ñi seetaan doon ay dof de waaw ay nit lan waaw dof nag foo dem dafay am <laughs> waaye su méccam théâtre boo defee doo ko def moo football la yam du ko def non billaay lan noo tax dof du de waa ndax buñ la bëggee wax loolu la lay yow fële ngay génn bu la wax loo guy ko yaa nga ca garabu niim nga. daqaar ga doo dem daqaar ga ndax day saf kon yaa ngi cëpp fii ca ca lu weex la. nii waaw mooy football mooy football boo ko bëggee mu football loo te fa nga bëgg mu jëme mën na amarke sax jour am. wala mu dugal camp mu ngi noonu moo tax dof du ko def. <laughs> dof du Assane Ndiaye dégg ngeen ko yéen moom théâtre Assane Ndiaye nee na dof du théâtre dof du football day marqué say <laughs> jour. boo ne guy ga mu dem niimaa ga. niimaa ga waaw <laughs> ayca tey euh, nan ngay dundeek ñi nga xamante nii ñoo la jiitu ci ci wàllu aar tey euh, dañ lay gis des fois léeg nga gis gaa yoo xamante ne nii ci aar bi nag laay wax euh, ñu ci bëri nag am na danoo am ay melo munu du mais ñu ci bëri dañuy am ay melo dañuy am melokaan yoo xamante nii mag ñi ñu ngi leen di xarab di leen laaj seeni xaalis yu ñu leen doon yoreel bay tax ci télé yi di ko wax looy wax ci loolu noonu. melokaan non melokaan foo dem am na fa. melokaan kër gi nga yeewoo sax am na ñu am melokaan. waaw waaw mais tey comme exemple Assane Ndiaye bind scénario jël ay nit tur mu tournel ba pare Assane Ndiaye war leen a fay fayu leen ba mag ñu mat la bàyyi jiitu la ci monde bi toog ci yi di wax en tant que acteur yow. en tant que acteur parfois erreur day am. waaw ndax maag yow mën nañu ñëw bokk lii ñu war koo def lee moonu tax a jóg ñu def ko ba pare fay ma ma dem. waaw am na ñoo xam ne li ñuy dugg lu leen ca jox baax na am na ñoo xam ne dañ temps nga may fay. signé nga fay leen ñu dem ñu signé mais ñi signé contrat laaw xam nga tey am na ay kilifa yu génn di am ñu ñuy joxoñ baaraamu tuuma ci wàllu payoor ci wàllu monde théâtral non te da nga dugg ci tuus boo xamante ni yaa ngi dugg ci tuus boo xamante ni tuusu jàmbur la. non xam naa ni tuus mais maanaam en tant que yow Assane Ndiaye ñi dund ci monde boobu. maanaam tey ñi ko def ba mag ñi génn mën nga leen a xelal dara. mën nga leen a wax loo xamante ni tamit tey mën na bu subaa keneen bu ko déggee tamit mën na ko même bu dul bu cadre liggéey la liggéey boo seqi nit ki di liggéey moom moom balaa ñaq bee fenn boo ko mënee fay fay ko mu dem waaw foofu laay waxee man waaw mais tey lay nekk ci biir lépp ci àdduna dafa doy waa nit dafa lëndëm oh, te nit booy wax na ngay wax la nga maîtriser la nga xam waaw dëgg la dëgg la man damay liggéey nit mu fay ma dëgg la damay liggéey nit pare mu ma fay ma génn dem dem sama yoon mhm. bu ma envoyé loolu sonalu ma dëgg la sonaluma lii dërëm bi yaay xool non neex na mais mooy loolu. waaw mais bu ñuy liggéey moo tax ñuy dem mais am na ci loo xamante ci nit la daal. dëgg la ci nit la. dëgg la mais Assane Assane Assane daa am liggéey yoo xamante ne nii. tey euh, euh, ki la mat papa jiitu la ci mbir. ki la jiitu nag ci néeg bu lëndam moo lay wax fi ngay toog waaye ki la jiitu ci mbir. yow àdduna di dox nga fan ko. àdduna di dox ba nga ñëw jël ko. dugal ko ci sa ci sa liggéey. Mm-hmm. bu paree danga ko nga war a def yëfi kilifa. même tey nit ki ci métier mi da nga gis koo xamante ni yow. moo la jiitu ci sa métier mi ngay def. waaw mais boo ñëwee sax même dara bu ngeen sequl liggéey sax di nga am sa nga ñëw joxe ko ko àllarba. waaw loolu day am. waaw acte noble la rek. waaw mais damay wàllu liggéey liggéey la nit ki boo seqee moom liggéey bu paree fay ko. waaw nit ki seq nga am xam nga ne kii yéen a bokk métier sa kilifa la ci. boo amee sa teraanga defal ko. dëgg la mu ñaana la loolu kese la du leneen. dëgg la gis-gis yi bëgg-bëgg bi doxalin yi mënunoo wax ba mbokk yaa ngi nii jeune nga may jeune. dëgg la xool ni nga solo ak ni ma solo. bokkul ah benn la. waaw te ay jeune la. 17 nga sol ma sol 17. waaye takkuma chaîne. <laughs> non seedi dañ ma koo jox. waaw yaa ngi nga solo. noonu la nit ñi di wuute. ñun nit ñi di wuute waaw gis-gis. dëgg la waaw mais mais mais Assane man nag damaa jàpp ni tey man su ma la soo ma liggéeyalee man soo ma liggéeyalee nga woo ma bi nga may woo kenn benn télé ñëwut ñu <clears throat> ma ko mën a expliquer te man ak yow bi ñuy signé kenn euh, euh, euh, benn télé ñëwut ma signé hmm. waaye boo may fay tamit nag maa war a fay balaa kenn ñëw foofu laay waxee quoi comme tey nga man ma nga liggéeyal ma ma téye sa alal ba ba ba mu yàgg ba ba mu mujj toog ci télé yi di ko mujj di wax ci rajo yi ci télé yi euh, euh, euh, day doon lu ñaaw parce que tey am na ñu bëri ñoo xamante ne nii dañ koy def mais yaakaar naa liggéeyal nit nga fay ko ci tàng-tàng bi tamit loolu day nekk lu baax. wax naa la ko de. waaw wax naa la ko liggéey bu jaaree boo si xindi ki liggéey balaa ñu xam a fenn di jox xamu dem. wallaay am na ñuy defee noonu. dëgg la ku ne nag ak da ngay liggéeyee. ku ne ak na ngay joobe dégg nga nee naa la man mën naa sëq yow liggéey su ma paree nga war ma war a toog nga jox ma sama xaalis. boo amul temps sax mën naa jug dem sama yoon. wallaay dëgg la après yaa may woo jox ma wala après. dëgg loolu la quoi. waaw après Assane. Euh, ci ci ci wàllu théâtre ban ban contrat nga njëkk a ci ci ci ci kii ci ci label yi comme lu ci mel ni lu demee ci ay mborodi euh, ay yeneen kii sax mënuma ko mënuma koo expliquer mais dañuy cité benn kii rek tamit ñu gisoon la nga gisee benn film boo téléfilm boo xam ne mu ngi tudd euh, euh, secret de famille. waaw je pense ah. secret de famille ñu ngi la ci gisoon. nga gisee rôle deuxième partie bi première bi am na rôle boo gisee mhm. mais deuxième bi tamit am na beneen rôle. Mhm. waaw. waaw secret de dafa nekk ñaari saison yu bokkul. dëgg la waaw bi ndeysaan da ci nekk euh, Amadou frère Alioune Sow. waaw xam nga rek. moo nekk koo xamante ni ñu bëgg lu yomb magam député la dal di am alal. jàppale ko mu dóor di ko jàppale mais nangu la amul jom. Mhm. ba ni mu demee dóore mëninu grand bi. dem kaaw ba. ne fa di jaaxal mag gi gaañu nag mu ñëwaat bëgg profité waat ci xaalis mooy ñu bëgg lu yomb yooyu rek foofu moo li ma ne moo tax may la aar jàngale la waaw mi ngi ci situation yi mais di ko jàppale mais xamul lool wala bëti gis nga situation ni mujj def di dugg di yi nga xamante ni moom la mag gi may woon ak yooyu mu fekkee woon lu bari daal waaw mu nekk rôle bu bu doy waar waaw histoire non dafa doy waar deuxième saison bi waaw boobu benn ku doon liggéey ci kër la ba yàlla def nattu Ousseynou boobu euh, trompé foofu mbindaan bi ba doom juddu ca pa ñu ñëw seeni i laaxaan si parents Ousseynou bañ bin bañee ñële ku jigéen ki ay maamam mer loolu moo war mu def la def ba kooku jëla ci xel mu taxal ko ndeysaan loolu ay jàngal di doxaat ba doom ji ñëw ci biir kër gi dafa liggéey eh, te xamul ne papa ma ngi nii kii xamul ne doom ndeysaan mu nekk histoire tamit bu doy waar daal. ndeysaan waaw tamit ñuy sant yàlla ci côté boobu ndax message bi ñu bëggoon mu jàll jàll na. macha allah waaw ñu ko def kook ak ñi nga tudd léegi muy Yes Dakar. Yes Dakar waaw yàlla def ñu seq liggéey liggéey après. après contrat bi jeex. waaw est-ce que yi ñu ngi lay woo pour yeneen i contrat pour kii. waaw woote mënul ñàkk. tey woo nit dina la woo ndax dina la dina xool xam ne li mu soxla ci yow la nekk. dëgg la nga ñëw defal ko bu ngeen déggoo nga defal ko bu ngeen déggul nga ko defal loolu la. macha gars yi ñu kase yi ñuy joxe tey di nga ci mën a gis sa bopp bu baax tey euh, gars yi dañuy signer contrat tey am na ñoom dañ leen di signer 10 jours yow 10 jours nga ci am ñii mais yow ñaata temps nga def ak Yes Dakar maanaam ñaata bis. ñaata bis waaw. Ah. saison lëmb la. saison lëmb bi ah. ñaata temps lay durer quoi. Ah, mën na def 6 mois mën na def. mais doo am droit dem ci beneen kii. ça dépend ci koy signer. ni nga koy signer ok. am nga droit boo nekkee ci am ñoo xam bu nekkee ci contrat duñ ko booleek beneen. ndeysaan. mais nag sunu classe gi moom sama ka dañuy ñëw. coppat ci bi fii cof ci fii xam nga rek taxale përëb dóor fee dóor fee. dóor fee te mën ngaa dóor fépp ndax mi ci yow. Ah, macha allah non dóor fépp de. maanaam mën nga dóor ci ñeenti comme point bu la jëlee fii jël la fii. waaw mën na ne am def fii li tourné fii li ngay tourné. Eh, dem fee tamit tourné li ngay tourné problème mooy bu jour yi bokkee rek ak heure yi rek. bu boobaa ni nga faussé quoi waaw dëgg la ah, wallaay dëgg la waaw dëgg la wax ca teel mu rafet nit ki da ngaa war di doxee noonu quoi. wallaay hmm. mais en dehors de théâtre lan lan mooy sa beneen métier. sama beneen métier. waaw. waaw ndax bi ma jàngee école ba génn ca. Uh-huh. comme sénégalais rek boo jàngee ba sa jàng taxaw ñu dugal say parent dugal la métier. métier man tailleur laa def. tailleur nii ah kon de booy boo ñawal ma. des na ci yow tailleur laa def. tailleur waaw damay ñaw. ginnaaw ñaw. yàlla boole woon na ma tam mën yëngu ci sport comme ni ko waxee sa biir wax. ndeysaan waaw doon yëngu ci football. waaw doonoon góol yàlla doon ci fo tamit. mënu mënu mënoon nga góolu trop. trop trop non non dama doon taxale rek. non man Assane man seetaan naa la nawetaan. Ah. doon taxale rek seetaan naa la Kamba ah, mm. mais li ma gënoon a neex ci ci ci Assane <laughs> su ma déggee ni déggoo mooy football. <laughs> rek damay teel dem tax ci ginnaaw camp yi muy góoloo ndax da ngay dóor bal mu koy jàpp. bu bal bi demee kaa yële mu fecc ba ni saay bu arbitre bi ne kii rek mu taxaw Assane nekk benn acteur boo xamante nii ci biir nawetaan yi ñun fekkee nan jot na fekk na oh, yàlla di dox euh, yàlla di dogal àdduna di dox tey ma la doon seetaan ba yàlla di dox ñu am lu nu benn liggéey boo xam ne ñu ngi koy liggéey ensemble ah. yàlla di doxaat tey ba ma ñëw fii di waxtaan ak yow moo tax àdduna dafa garaaw tey daa gudd tànk euh, euh, gars yi nan bëggante ñun artistes yi suñu biir nan bëggante jox joxante cër laabirante Ah. dëgg la man tey su ma footballee sax aar moo tax ma football. Ah. théâtre moo tax ma football. troupe ASC yi laa bokkoon bokk moom man daaw ma football de. Ah. man football mënuma ci woon dara barke alxuraan. di jaar ci troupe ASC yi nga bokkoon. waaye sama di góolu sama koñ ASC jàmbaar seen troupe théâtral. ndeysaan bokk ci waaw. ñu def ay tournoi waaw xam nga rek mais dem nag bi ak supporter dem terrain sol ndoket sol caaya yëngal terrain. <laughs> dem ba benn sama année sama équipe amul góor loolu ma boole ci football. nga nga ko ma jéngu. ndeysaan dem ba équipe jour ma njëkkee ñëw terrain central dugal dënn muy fecckat bàyyi gu woon mooy li ma moo tax ma la aaru Sénégal dafa doy waar da doon artiste dem terrain di di di di di football quoi hmm. taxaw si camp yi boobu tamit manqué ñu manqué góol man naa góolu benn boy naan waay yow grand tëggkatu sabar bi mooy hmm. góolu fii non yow bu affaire yi ma ko booy instant bi yaa gis tëgg sabar wala yaa gis artiste ci man mais instant bi jour bi moo taxaw mais bi ma góoloo ba pare mu taxaw ni ma grand bett nga ma nag man xamu woon ma ko tam ma ne ko artistes yi dañuy mën lu bari mais dañuy toog mais loolu nekk lu mais tey euh, dégg naa maa ngi fort ci wéewu bay ni am na benn affaire booy kii booy booy defar boo xamante ni euh, dafa baax ci nit xaw ma nag nu mu tudd euh, benn genre tee la da koo dégg hmm, dama koo dégg ci nit ñi parce que per Pape Demba moom ko wax mu ni ma Assane Ndiaye booy fils mi ngi defar ay tee yu garaaw yu baax si nit xaw ma nag nu mu demee. ak loo koy composé ba muy baax si nit di faj. te dégg naa lu muy faj bari na. loo koy composé kooku mooy alxatiir. allan mooy lu garaaw. dafa garaaw. fu ma day nekk dama koy ngànnaayoo. ah sa yow mooy baax baax na ci eh. doomu aadama ah, lu luy composé alxatiir. parce que dafa bari njëriñ waaw. Euh, boo nee jinjeer rek. jinjeer bari na njëriñ ah. xorompolle waaw petit cola waaw laurier waaw ceeb waaw naana waaw ak leneen li ma ciy dolli <laughs> loolu rek la xool li ma la limal rek ci nekk rek la mën a def ci doom Maodo xorom polle xorom xorom sax am na ci dafa léegi léegi noo koy composé ba ba mu nekk tee ah, mais kooku sama sama sama mbiru bopp léegi yow yow yow léegi euh, euh, est-ce que mën nga nu cee ñu ñam wala bu fekkee soriwu la euh, nga jox ñu ci non new fi nekku fi newu pareegul <laughs> Assane Ndiaye bu nu nax waay. nee naa lu ci bari day nekk damay ngànnaayoo moom. te mu ngi fi toog yaa ngi toog te gisoo ko mu ngi nii sama wet. ah waaye nekk sama wet mais mu nekk affaire bu doy waar. man ndox laa ko tegoon sax man damaa dem ne woon ndox la hmm. lan lay faj ci nit. non bari na lu muy faj ci nit. lan ak lan kooku bu dee doo boo lekkee du rees. waaw ah. fat fat boo ko naanee mu mu reesal ko. ak lan. maa bi da koy dindi. Hmm, ak lan. ak raxas deret. ak lan. boo moytuwul sax booy sang njàmpe ji koy wekk dem sangu <laughs> nga naan maa la <laughs> lu garaaw laa lay wax nii. Maodo déggoo déggoo ko de nga ne booy. alxatir ci boppam. beneen affaire booy sangu ji affaire ba baatu naar lay doon. alxatir mooy lu garaaw. ah xatir. waaw ah, mais xool li la composé. waaw li nga composé moom ay garab yu baax la yu naturel la. yoo xamante ne nii laurier xorom naana jinjeer. Euh, euh, euh, petit cola leneen ak leneen du ma la wax lépp waaw. waaw léegi yow léegi yow da nga ko da nga ko da ngaa pare pour développer ko pour ñëpp gis ko wala da koy da ngaa toog sa kër di ko jaay par quatre cent franc wala quatre fukk wala da nga koy jaay par. un litre da foo koy jaay par litre. ah bu dugal laay teg sama table nga naan maa la. gars yi gis ngeen Assane Ndiaye de. Hmm. mi ngi nii soo bu dugal teg xoolal ci quoi nit ñi ñëw di ko di karaafi fu ne lay jógee ak termos yi. moom alxatir kaas yi alxatir di toj réew mi ma ñamal alxatir yow foo jaar yow ma ñamal alxatir moom daa alxatir doo guux de gaa yi alxatir neex na de neex neex rek nga ci gis non neex na mais tey mi ngi mi ngi saf kii li mu ko composé lépp mi ngi jóg góob bi mi ngi ñëw. mi ngi noonu nag Assane Ndiaye mi ngi nii lan amoon. nee na moom alxatir bi fu ne fu ne la karaaf yi di jógee. fu ne lay jógee <laughs> ci béy litre ma yóbbaale. non dara fi mu toll nii ah. kay moom waa Tacko TV moom am ah. bëgg a nelaw du ngeen nelaw. <laughs> Maodo Ndiaye nga koy jox. ndax moom day nelaw. mais Assane est-ce tey mën ngaa tàggoo gërëm sant tey ñu ngi lay man moom maa ngi lay sant di la gërëm ci oyof gi nga oyof ba ñëw ba ma ñëw fekk la nga toog fii sa kër gi sa keppaar gu féex gi euh. mu neex lool euh, euh, looy tàggoo waa fii nag moom wax dëgg yàlla fi nga ma fekk ma toog moom mooy sama féef ma demul fenn fi laay toog jàpp sama njàmbur hmm. waaw mu nekk ñu baax fii la naan si leen kër Baye mbay si la yëmbal kër Baye Mbaye si la ah, mais fii daa mel ni dëkkul lébu la de waaw ah, fii dëkkul lébu la yëmbal alab lébu ala ñuy lébu <laughs> waaw mi ngi noonu di jaajëfal ñëpp nag surtout sunu mbokki internet yi yu Tacko TV ni ma leen ko waxee ñun ñooy yéen yéen yéenay ñun ñi ànd ak yéen ci liggéey boo xamante ni leen rek yéen a ko waral te yéen a nu mën a jàppale ñu leen mën a jàppale macha allah adduna nag moom dara yàggul ñu koy rafetal lu fi nit doon rek nit a ko ko def waaw comme ni ko laay waxee ñu koy rafetal waaw di ñaan nit bëgg naa it ngeen di abonné di commentaire ñu bokk ànd ak yéen liggéey ndax Tacko ñu ñëpp la fa nekkal moo tax ñu ne tàkkoog malaado ak faatu mata su ma yéggee yëmbal doog a lëmbal mun na dëxin mën na doma daa man sa loxu mbala eh da nga mbul di <laughs> waaw rafet na nekkoon Assane Ndiaye nekk grand maestro waaye nag eh, li ci li ci ëpp solo ci li gën a garaaw ci moom moom daanaka day làqatu moom bu mbooloo bi ci sax mu bu kii bu mbooloo bi kiyee sax daanaka mu mu mu moom ci ginnaaw lay ne. mu nekk tamit ndaanaan bu mag rôle boo ko jox mun na cee jouer bu baax ni koy personnage bi tamit mën na koo jouer eh, ñu ngi koy ñaanal yàlla jàmm. tawféex tamit di ñaanal waa yëmbal ñi nga xamante ni ñooy lébu yi fi ne di ñaanal tamit euh, monde eh, théâtre eh, eh, yëmbal lébu rek ne fi la ñëpp fi ne actuellement xeet yëpp ngi fi ah. ñu ngi ñaanal ñëpp ku ndaanaan la nag waaw yëmbal ay booy am jom fi ne wax dëgg yàlla ñu bëgg seen bopp xam ne bëgg xam fi ñu jëm ndeysaan Sénégal sax laay ñoo xam ni seen bopp mais nag daf cee am ñoo ne parfois ay ñu xamul àdduna waaw ndax fan yi maa ngi dégg benn wax boo xamante ni wax nan ko man ko sax après ci laa koy soo gisee ci laay bi ma déggee wax ji nii ma xool ñu woon ma vidéo bi ci laa koy soo xamee muy kan Pape Djibril Fall waaw mu wax wax joo xamante ni wax ju doy waar te wax ju ñaaw gis na àdduna naan laa euh, yaa fi ne yaa yaa mën a wax ba nga wax loo war ta wax wallaay dëgg la mu wax wax joo xamante ni wax ju ñaaw la wallaay dëgg la gis nga nit mi ngi fi mayee million wallaay kenn dégg ko <laughs> nit mi ngi fi mayee kër kenn dégg ko nit a ngi maye terrain kenn dégg ko nit a ngi daggal nit bii muy dem Europe di dem ak ñëw kenn dégg ko yow nga maye lu dul benn cinq mille francs <laughs> di wax ni ñi koy may. Ah, man de képp koo xamante ni dama danga mel ni yow. wala ngay maye di ko wax yàlla bu ma xamante ak yow ci kaw suuf am na loo xam ne dafa ñaaw. lu toll ni jigéen sunuy waajur ngay jël baat yu ñaaw yooyu di ko teg seen kaw loolu tamit ñaaw na trop. salle de classe boo ci duggee am na élèves yi noo mën a waxee ñoom communication bu jàll. ci leneen ak leneen ci wàllu njàng mi wàllu parent d'élèves wàllu lii xam nga lu doxal njàng moo gën ngay ñëw di am looy teg ci ay deri doomu aadama yoo xamante ni wax dëgg yàlla bu la gënul ñoom gënoo leen mu nekk loo xam ne képp koy artiste ñaawlu nga ko fa nga koy waxee xamoo ña nga toogal ndax doomi artiste a nga ca uhm. nga ñëw di wax loolu nag ñaaw na trop kon ñun artistes yi tamit man gën a xoolaat fi ñuy teg seen am nañ doomu adama yoo xam ne jarunoo xam jarunoo jëflanteel. waaw wasalaam. waaw ah, Assane Ndiaye mi ngi noonu euh, euh, euh, tey damay wax rek tey nii artistes yi moom muy fecckat bi woykat bi tëggkat bi ba ci théâtre kat bi. tey théâtre moom boo ci laalee as tuut rek laal nga léppi léppi aar lépp ndax euh, théâtre moo ëmb lépp ci art ndax théâtre moom mooy am feccekat bi am tëggkat bi am woykat bi. am yaatu na am am am am am lépp. art dafa yaatu. waaw moo ne art rek mooy nga ne sport football baag rugby baag. waaw tennis baag lépp mooy art boo ne art feccekat baag ñëpp a nga ci. ñëpp nga ci biir léegi nag boo laalee artistes si rek kenn rek ñëpp dañuy yëngu. mais man lébu moo may rey lébu. léegi vidéo bi dama ko reetaan <laughs> bay bëgg a dee wax na dëgg ne dañ ko laal mais déggaloo képp kuy artiste loolu wax dañ ko laal ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi li ñu ngi wax euh, ñi nga xamante lu jëm ci wàllu aar ñu noppi ci li nu xam ñu ciy wax yow laay ñaata nit la may yëre wallaay Maodo mi ñaata nit la may yëre <laughs> bari ñaata nit ngi fi may xaalis bari mais kenn dégg ko wallaay gis nga àdduna buy bëgg lu neex nit ñi wala nga bëgg loo am bay wax loo xamante ne xamoo ko maîtriser woo la nga ñi nga séqal ñooñu tey fi ñu toll nii la summeeku si ñoom xamoo ko. wallaay dëgg la ak ñi ko bëggoon ak ñi ko bëggoon. laay ah. am na ñoo xamante ni yàlla bu ma xamante ne ñoom ci kaw suuf. est-ce que mi ngi noonu nag mbokk internet yi Tacko TV ñu ngi leen di béggee ñu béggee Maodo Ndiaye moo nekkoon ci technique bi moom saa bu nu xëyee dañ koy gërëm euh, mu sawar nekk koo xam ni ndaw lu sawar la ba pare bar maamam moo ko yar def ko ndaw lu sawar te bar ne ko jugal dem liggéey dañ laa yàkkamti muy Maodo ah, moo tax euh, euh, mu nekk ku baax nekk suma suma suma booy waaw ah, ñu ngi lay bëggee di bëggee tamit ñi nga xamante ni ñooy ñooy ñooy seetaan Tacko TV seen aar tey Assane Ndiaye laa seet si woon artistes yëpp préparé leen muy kat tëggkat kat taasukat peinturekat théâtre kat ñëpp préparé leen seen aar la aar bi lépp laay dëxëñ ku ma ku ma jekko rek jël la mais nag ay ndaanaan lay jël du ma jël ay waya waya waaw maa ngi leen di bëggee Peace and Love képp kuy bëggee Tacko TV rek maa ngi lay bëggee kii dina dee ci alxatir ji de Maodo mi day rey boppam ci alxatir ji de Maodo <laughs> waa kii lu muy def nii doorum ndànk Maodo a ngi cëfi cëfi alxatir dafa garaaw nag Maodo alxatir bi da teen doo naanaat kaas <laughs> kaas boo ko Maodo su ma nee def <laughs>